19 article 19 euh, lan moo ko tax a jóg Sénégal. waaw article mooy kuréel bi nga xam ne li ko tax a jóg mooy xeex pour àq ak doomu aadama li ci li ci gën a am solo ci li li li nga xam ne moom la ñuy liggéey mooy liberté d'expression maanaam wax li nga xalaat ak ni nga ko xalaatee te doo gaañ kenn te doo euh, perturber équilibre dëkk bi. maanaam mooy défendre tamit journaliste yi ci li nga xam ne seen liggéey la ñuy def ngir ñu bañ leen a tëj ndax dañoo joxe information ñooy defendre ñi nga xam ne aussi expression bépp bu bu citoyen mën a am rek muy théâtre muy image muy parole népp nu mu ko waxee rek ñu mën ko mën a jëmmal ngir àq la ndax àq la ak yelleefu doomu aadama. Euh, mais seetlu fan yi ci ginnaaw euh, ku yëngu rek ku yëngu ku wàll nga wax dara rek ñu jàpp tëj. bon xaw ma loolu nan laa koy apprécier en tout cas pour ñun li ñu concerné citoyen bu nekk donte journaliste nga wala leneen am nga droit nga wax li nga xam ne moom nga xalaat. waaye nag di ci sàmm ñaar di ci sàmm li nga xam ne doo doo doo wax li nga xam ne lu dul dëgg ndax désinformation léegi dafa bëri donte xamuñu sax lan mooy désinformation ba tey muy benn ñaar li nga xam ne da ngay garder équilibre dëkk bi maanaam doo wax leen luy tas réew wala loo xam ne dafay jaxaseem réew donc suñu basé woo ci loolu mën nañu mën nañu wax ne ah xam na xool nañu ne ci jamono yu mujj yi nga xam ne liberté d'expression nasax na fi wala am na fi ay problème yu bare bare ndax parfois ñu jàpp ne te doo xam ban base la ñu ko jàppee loolu tamit lu war a bàyyi xel la ak looloo tax nag article 19 bi xeex ngir yooyu yëpp ñu mën ko jëmal boo demoon tey si suñu site internet wala suñu Twitter maanaam cas yëpp yi nga xam ne dañuy am sur violation liberté d'expression wala li nga xam ne tënk nañu nit jàpp nañu nit te xamuñu luñ ko jàppee ndax dafa wax xalaatam yooyu yëpp ñoo ngi koy. ñoo ngi koy bind ci ay rapport ñoo ngi koy transmettre ñi nga xam ne mooy Nations Unies ngir ñëpp mën a bàyyi xel li nga xam ne moom moo xew fi ñu toll nii ci réew bi ndax loolu dafay wane ñaar dafay wane ne droit de l'homme moo ngi jëm moo ngi dellu ginnaaw mais aussi démocratie moo ngi dellu ginnaaw ndax nit bu ñu demee bu nit sañatul wax la mu xalaat rek foofu problème commencé na am. waaw ci wàllu démocratie ak wàllu droit de l'homme tam euh, ñu barki ñu ñu tëj parti tëj ñu euh, dissoudre ko maanaam ñu sayal ko ñu ñu ñu ñu ñu effacé ko ci wàllu euh, wàllu politique gu Sénégal tëj seen i euh, seen i siège ñoom la ñu waxoon dañuy dem recours maanaam dañuy dem ci fi mbax ne doonee benn pour que arrêté boobu ñu dindi ko gouvernement bi bokk def. fast track comme ni ni koy waxee loolu yëpp xaaruñu ko loolu est na ci ci wàllu euh, droit de l'homme kooku du ma ci sori ndax nekkul suñu domaine de spécialité li ñu mën a wax mooy maanaam lépp loo xam ne day delloo ginnaaw démocratie wala lépp loo xam ne dafay tënk citoyen ci àq ak yelleef yi mu am justice moo ko war a wax donc décision boobu nga xam ne décret bi ñun gisaguñu ko donc mënuñ ci àddu mënuñ ci wax lu leer waaye gis nañ communiqué bu ministère de l'intérieur dégg nañu tamit ay membre ñu ne ñoom bis bu bu ñu ko jotee dinañ dem ci justice donc ñoo ngi xaar justice def yoonam waaye jàpp nañu ne yooyu yëpp ay éléments yi nga xam ne mën na delloo ginnaaw démocratie mën na delloo ginnaaw droit la